waaw na ko dal. xam nga nit ku tey lu mu am rek yàlla mokk may. dëgg la. mais dama lay wax benn affaire bu ndaw a ndaw a ndaw a ndaw. waaw. kañ nga jógee Sénégal depuis kañ. yàgg na. delluwaat ko fa ba tey. delluwaat naa ñëwaat. kañ nga fa dellu woon. deux mille euh, ñu ngi ci lan ñu ngi ci deux mille vingt. mille dix sept. mille dix waaw waaw même su dee 2017 la gis nga deux ans yi passé waaw Sénégal dafa am lu muy doxee nañ dem moo gën yor nga ay milliards ak yoroo milliards ak yor nga ay oto yor nga Ferrari mais dama lay wax en tant que frère tey na ko dal sénégalais lenn lay bañ kuy mhm. wane ni lii laa am waaw képp kuy wane ni lii laa am waaw sénégalais da lay bañ dëgg la sénégalais mooy dundee noonu. dëgg la. tey li nga yor yow. waaw. en tant que frère su ma doon yow da nga koy jël denc ko. merci. gérer ak moom taxawal rek. waaw na ko daal demal. denc ko. waaw parce que moo dama lay wax benn affaire de. waaw. am na ñu yor ay milliards yi milliards yi milliards yi milliards waaw. te kenn déggu leen. te muy dëgg. kenn yëgu ko. dëgg la. kenn xamul lu ñu yor. dëgg la. boo leen gisee da leen di yéene sarax. dëgg la ñooñu la sénégalais yi gën a fonk dëgg la tey yow li nga yor boo koy wane chaque jour di wax ni lii laa am sénégalais yi dañ lay jéppi waaw tey foofu lay mujjee waaw te loolu dama la koy man yaa ngi naan tey nit ñi dañu soxoon dañ naan yoruma mën nañ laa dëkkal fu ne parce que li ñuy gis mooy moo gee dañuy wone xaalisam di def ay mbir moo tax dinañ la dëkkal fu ne loolu tamit dëgg parce que lu ñu tàmmul la tàmmuñu di ko gis nit ñi di ko wane sénégalais dafa xam nëbbatu tey buñu gisee yow nga ne boo doon américain kenn du wax ci yow dañ naan yii américain bi yor na lu bari dëgg la parce que loolu seen dund la mais li ngay def du dund sénégalais mooy comme ah. xaalis bi génn nag yooyu ngay wane ñoom mhm. xamuñu loolu waaw xam nga ñoom sutura lañ xam looloo la léegi loolu la sonal ci ñoom tey liñ lay yàq lépp yow tey loolu kese la mooy dañoo bëgg moo géet li muy def mu wone ko mu def ko ci suuf te bañ koo wane di leen def man ñu baree may woo naan ma sa xarit bi xaalis bi mu yor ak lii koy jëlee yii mën a leen xaw ma ci dara. <laughs> parce que lii laa xaar nga wax ma ko en public ma tontu la ko en public. su ma xaalis bi ngay wane da nga koy denc. mais keco xaalis la yaa ko moom yaa liggéey téye ko. mais keco kaa mesul la benn affaire. du xaalis waaw. mesul la benn affaire. waaw. Euh, gis nga. nit bu nekk dafa am fu mu bokk waaw man fi ma bokk fi may tibbee fi may defee business ñoom son mentalité fa la fa la toll. mais loolu la ñu wax waxaar waxaar waxaar ma ñu xaar non ma ñu man ba léegi man waxuma ni que du ma sénégalais mm-hmm. mais li ma na bëgg expliquer mooy soo duggee si dëkk. fekk ñuy marche arrière da ngay marche arrière ni ñoom man samay samay business partner ñoo xamante ne ñoom laay defandoo business fi may tibbee su ma demee foofu noonu tey Akon su doon rab di sol Sabador benn américain du ko faale parce que ah. dafa dem rab ak ñoom jëndi ay chaînes yu un million de dollars haïtien 500 millions de dollars C'est loolu soo ko Sénégalais du comprendre Légui. Même, même, un même, may ma waaw est-ce que un contexte hein? mm. su un Sénégal dafay sol veste ak cravate est-ce que comprend? nga hein? dem def ay business am un concert ay xalé yu mo lay jël ko ci un parce que fu muy ñom mentalité est la hmm millier yi bokkul léegi dafa def xool xam-xam si milliers yi bokkul. Hmm. man su ma nekkee ci millier sénégalais du ma won du ma wone li ma am parce que su ma ko wonee Instagram bi daanu yoo xam nga ni que man ma jël benn cent millions teg ko ni ci Instagram bi wax comme yeneen américain ni ñu defee du dara ci man mais milieu bu nekk ak li nga fay def ak li nga fay wax. yow fi ngay waxee. na ko dal demal. moo gën. yes. dinaa la waxaat beneen wax. na ko dal demal. xam nga lu naan sénégalais dafa roy ba dàq. demal. maanaam yow li ngay wax ni mooy fa ngay tibbee fa ngay dem ak fa ngay jëlee ñooñu na fa ñooñoo fa ne. waaw. tey yow ñii ngay waxal Instagram ñu lay gis. waaw man ñi may wax ci yow yëpp Instagram lañ lay gisee. dëgg la comme que yow nee nga li nga yor doo ko wane. kon boo mhm. ko ci Instagram ndax Instagram ña fa ne ay sénégalais rek lay suivre. merci man ba léegi. tey fa ngay dem wuy ma. fa ngay dem di fa rootee. waaw ñooñu tey ñoom la concerné bu leen roy ba daax leen man li ma bëgg rek lenn la. man mhm. sama xarit nga. Mhm. sama xarit nga. waaw na ko dal ma ñi topp naan la ay xeeyaan nii de mukk ci àdduna du ma ko mës a <laughs> ko def dawal. ba am fu ma la teg. Uh-huh. maanaam retour damay dégg ay retour tey moo gën xamuñu lu muy liggéey xamuñu lu mu am ñoom seen yoon nekkul ci yow. lijjanti wuñu la waruñu mhm. laa lijjanti sax ndax yàlla moo la def ni nga mel ngay suturu mhm. mais pas public boo ko wanee public rek Sénégalais bëggul loolu bu yàggee mu teg mu day jàpp ni lépp ay fen la lépp ay dóor la Sénégalais dafa bëgg kuy nëbbatu te muy dëgg moo tax euh, keso man sama Instagram ba léegi ok Snapchat nag ñu fa am nag yëpp suma sama sama public man ñi may topp suma Snapchat ñu ci bëri ay américain lañu mais sama Instagram tey ba léegi warew ma fi cash liquide ba léegi warew ma fi ay jigéen yu lëmbal ba léegi. no xaaral mais da nga koy wax. no xaaral ma ñëw da nga koy wax. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw rek ci rajo ba léegi waxuma lool noonu ba léegi defuma lool noonu bon xëy na wax bi xëy na juumte la dañuy fo dañuy kaf di ree mais li ma la bëgg expliquer mooy c'est que man dama am ñaari façon milieu benn milieu boo xamante ne que maanaam ñoom. ay ni lañ ni d'une, dundé am benen milliers bo ay sénégalais lañ sama milieu sénégalais lima fay def lima fay won dafa am ay sénégalais yo dañuy joggé ci milier bobu dem di suivre milieu américain bi dem di fa tibé ay information wat ko ci milieu sénégalais non la mais li ngay wax comprendre na ko parce que instant bi Ketchup fuñuy est-ce que comprendre Mm. tollootuñu fuñuy fuñuy fu wala fuñuy ñuy wane xam xam xam rek. waaw fuñuy fu ak fuñuy ñuy kii man bi may am 19 ans si la njëkk am sama entreprise 19 ans kon bi may nekk millionnaire du tay yàgg na est-ce que comprendre nga. maanaam lii nga may expliquer nii rek. waaw munoon na ñàkk ci sénégalais taxaw di déglu. li ma mais mais non mais mais loolu jaar jaar la. kese dëgg la loolu jaar jaar la wuy ma. tey jii nii non loolu jaar jaar la. rus naa taxaw yor vingt dollars. vingt dollars waaw demal waaw. sénégalais waneel waneel sénégalais waneel yére. waneel dàll. waneel oto. mais boo ci dugalee xaalis rek mu xeeb la. dëgg la. loolu rek laa bëgg a wax ci lu ndaw maanaam dalay xeeb eh li ma lay wax nii déglu ma de moo.